bàyyi gi kilifa gi maa lay ziar jàkkaarloo sama gaay nag gaan du ma gaan maa lay wax loo naa delloo ziar tribunal la Mamadou Gueye laa tudd Mamadou Gueye waaw lan nga fi man chauffeur la ah. chauffeur transport irrégulier ah. waaw moom da laa liggéey ndax amuma leen lu ma liggéey ndax chauffeur laa sama oto nag yor naa nekk naa ci làmb ji ba bàyyi ko amul leen ma jënd sama samay mag jàppale ma hmm. ma am oto bii nag dama daan bëre man dañu wax Brésil numéro 2 bu Thiès bu Thiès maa ngi woon écurie Tapha Tine ànd naa un an et demi après combat mook Elton laa fa jógee doog faa jógee ñëw fii feebar ñëw Thiès def fi un an doo ko fay waat dem xam sa cosaan maag soq ci laalam laalam tudd guddeeg bëccëg maa ngi ko nuyu au passage mook jat lay ma ngi états na yàlla defal jàmm champion la <laughs> ah. gisee yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk Thiès ñu ne couvre-feu am na diggante Thiès ak Dakar vingt une dañoo war a tëdd ngeen ban gis ngaa dégg-dégg hmm. man moom wadu doy ah. sëñ Tuubaa rek laa yaakaar hmm. lamb nekk naa ci bu jóge ci musuma sax sànni xeer luy nuyoo ak violence man doxuma ci waxuma ci. démb Dakar laa fanaan sama oto bi vingt heures quinze laa tëdd. barke Arxaan ba quatre heures quinze laa jugaat sama oto. ndax taluma yenn yi taluma ko liggéey laa bëgg. xale laa mais nag bu état defee leen même bu ma ci àndul bu nekkul lu ma bëgg sax dama ci ànd. parce que état moo suñu mooy suñu kilifa quoi. mu dogal nag na li tax mu dogal ko moom moo ko xam. xañal tamit li ñuy wax ci dëkk bi am na mais man gisaguma ko teguma ci sa bàmmeel. boo tëddee di nga nelaw bàyyi sa oto ci biti gaa yi coow laa fanaan dëkkuma Dakar Ndiakhate Ndiassane gi laa dëkk moi je suis né à Ndiakhate. ndeysaan. Ndiakhate Ndiassane gi laa dëkk. ma liggéeyee coono bi laay fanaan su ma demul Pikine fanaan sama kër gaa yi sama oto bi laay tëdd sama mat laa dëddoo su dul loolu nag eh, damay